Assalamualaikum, <laughs> assalamualaikum gars yi la setup koccu barma bi man na kanja man na mafé mom setup koccu bi ci waja iran ak wa batiman ku kurise ya xam ku kurise sa bop mbaama ñaf lay kur ci fer pele am ngeen jamma ah? talax-lax rew meeg rakam rakam jeeg dajj dajj je layi layi bay basiru jomaay jaxar faji ci fer pele barke yowmal qiyam markas ala kilot <laughs> barke yowmal khu muni. non non nga xamal la benn affaire nag waa presse ban xamee ni Daara Xudus gi ci Mboro laa dëkk ba nii may wax ak yow ñu dellu xam ni man xëri samay maam jogo lañu dëkk may ñu ma jàmm waaw ndax ki bind xanaa bugaana ah <laughs> bugaan yaa bind naa def ak coono ñu ni Daara Xudus gi ci mbooro neex na lool waay waaye amul Casa Peur ah? lu kenn dul dindi la way kon ma day la de waaw <laughs> moko ko bind de xala bu gaana bind li han wa press de ban xamee ni daara ko dos gi ci mboro la dekk xamni jogo jogo genn Manam war mbij korosma waraa mbiij jëm jogo bañ xamee ni fa laa dëkk ba ni may wax ak yow may ñuma ma mu delu wax ni jogo genn maanaam seen robinet yi buñ ko tijjee ndox ma muy xelli comme ñeexu maafe comme dooma daa xanaa forage yee yàqu <laughs> lii de ministre de la loo war na cee wax ne doog coono <laughs> yéen nag may offensé nag waaye nag lu kenn dul dindi la kon ma day leen de waaye yam leen foofu rek damay dayee de mhm. <laughs> yam leen foofu de damay dayee kuur laa damay noqe ci faire pele offensement de tiktokeur et chroniqueur youtubeur waay Mhm. non mi ngi ni moo ko bind léegi ba tur wi nag la ci fàttee def pour man bugaana sax waaye du ma tooñ parce que xaw ma ko bind waaw nee na jogo nee na jogo amul ndox de robinet li ñuy xel comme ñeexum domadaa rek ak maafe hmm? amul problème dinañ ko saafara ñun man nañu kànja man nañu maafe ñu ni daara xudóos gi ci mbooro neex na lool waaye amul kan sapeur yamal foofu rek bala ma laa li fa ci yi mu ni Sénégal 2025 incha allahu rabbi waaw ah, bor moom xanaa waa léegi waa kii moom teel naa fayeeku di yow bàyyil ba 2025 rek kan la kan lañ yoreel bor bi naa def ak coono yow min yoreel bor ëppal nga torop waaye bàyyil ba 2025 waaye bala ma pop. puub ah ñu ni Sénégal 2025 war naa fay 8125 milliards hmm? daan noq bari ba dee sax nag 8125 milliards ah waaye jomaay naa la dimbalee juróom fukk man de juróom fukk fii ma toog juróom fukk laa yor de <laughs> yee yee yee bari sax bàyyi FMI naa def ak coono FMI ay waay FMI nee na na seen xel dal kontaan continuer talax-laxi bàyyi Sonko jeeg dajj dajj ji fayekum impôt mi ci réew mi man bàyyi FMI kontaan naa ci ci gàttal rek pour ma résumer leen ko FMI nee na kontaan na ci bor yi nga xamante ne ñu ngi koy fayeeku ñi nga xam ne ñoo war a fay impôt ci réew mi bàyyi bugaan fay na <laughs> fayal waay yaa ñu teen naa ni pale de <laughs> fayal bor waay Mimi Touré xëy yeey yàbbi yaay waay yaay booy na nga ak coono Touré man di mori am nga jàmma ko tanante ay waay tanante su konoon kollee bi jee <laughs> naa def coono Mimi Touré xëy ni yow Amadou Ba bàyyil sa dajj dajj jeeg sa lay lay jeeg sa rukkum rukkum jeeg curux curux ji ci réew mi bàyyi ti kenn jaafaa kuli rek sampai sam pej temal ko ci baram bay taxam fi ngay tek sa tank yow amadou ba mimi touré ko wax da du say wax mimi touré xey delu ni mi ciowam bari na ci réew mi te ñi ci dajj dajj di ci wax lepp xamuñ ci li ñi wax dara parce que jox nañ le micro rek nan way c'est à dire le FMI le xamoon ci la ngay wax dara <laughs> mané ko ci retour da parké yaay mimi man na kanja man na maafe masali nee vraiment moi masali l'homme de Thiès je suis très fâché mané ko ya xam Ah, on est daa fase parce que Nena Mimi Touré c'est elle-même qui était là et en train de attaquer Ousmane Sonko à l'époque mais aujourd'hui c'est Mimi Touré qui est en train de défendre Ousmane Sonko man xërisatub kocc bi ma ne ko masale Mimi Touré de la gën aw demin ci faire pele parce que nag daa riiroon rek non da rirone rek eh yoon wi ni yoon wi boo riiree da ngay dajji dajji foog ni ci li nga lekk mooy dëgg waaye buñ la gindee buñ la gindee ngay xam ne nekkoo woon ci dara waay dëgg rek kay dëgg la ca ginnaaw dëgg ay fen la ci fer péré masale am nga jàmma wuyaay waaw waaw cinq personnes ils sont morts de ils sont morts de un accident de voiture là-bas oh là-bas oh oui xanaa li ndàngal ma la mbind mi leerul de. mune un accident de voiture là-bas à Ndangalma hmm? Sénégal <laughs> na ngay gis ku jang ba am mët ak bac lu bind faute la xam nga ni li baxul Ndangalma bu dee moom nga bëggoon bind kenn duko bindé ni nii cinq personnes ñoo dé ci bobé accident la ca blessé kenn xamul num tollu day baña fanan ci ngaam motax bindul lim bi nee li dé bari na de ay way inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wop wop wop ñu ni le 27 septembre liste ba nga xamni bypass chef moom la war a demee wala moom la war a posé wala moom la war a ci faire pele waay waay waay waay lii xamuñu dara lii xam nga ni lii koy bind nii xanaa bàyyi ma jambal jaaña bind lii nee na vint 27 septembre liste bi nga xamante ni Pastef moom la war a demee ci yooyee élection ñu dañoo bëgg waxu élection quoi man pour ma sax danaan le 27 septembre Ousmane Sonko day takk ñetteel mu naan vint 27 septembre usmaan Sonko liste ba war a dem xaw li hmm na nee le 27 septembre Ousmane Sonko liste ba nga xamni mom la Pastef wara démé man Pastef fum jëm hmm Ousmane Sonko dina ko fessel li du débat nak wax deug yalla nak le 27 septembre le 27 septembre hmm xolal lim bindé septembre bi septembre 7 sept dala def ci kanam mu le 27 septembre Ousmane Sonko liste ba wara dem ah dem fan wa lolou xam nga loy problème bi dem fan ah li la yusu Ndour nan dem dem dem fan dem dak lan na def ak ciono ñu ne liste bobé de Ousmane Sonko bu ngeen sàgganul dina ko fësal seen yoon neeku ci kap ngapu ay juut na len wang way saytaane ngeen torop <laughs> ya ya ya li mom na ci ñuus nit wa li na ci ñuus nit parce que ñi ngi wax rek te ñu ni sa mama Nous sommes les gens qui gi attachez vos ceintures immédiatement xëri le sëtu coach résumons l'actualité s'il vous plaît ci faire pele ku sa ñu ni gi ko Sonko Sore ko Basirou Diomaye Faye le prophète Mohammed sallallahu wa sallam une minute de silence pour notre prophète waaw loolu la wax de nee na gàmmug ren gi dañ ko ñulugee Ousmane Sonko xorome ko le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ku corrigé sa bopp noo xam nga ni lii temps la <laughs> man ko ci rumbi temps rumbi ndaj temps lépp ci ay xeeti temps la bokk barke yëmal xuloo jël basar attachez vos ceintures immédiatement ñu xool kan moo Euh, Sore gam gi bay Sonko ak ku ko ñu luggee fay kan moko xorome le prophète nak mohammed sallallahu Alaihi Wasallam. am ngeen jamma ma ken yabulen wa lan mo xaw mam boy am nga jamma si no ki dama ko bëgg barke yowmal basar mam boy wax ma lu xew ma rek la problème bi ci faire pele barke yowmal mal wax ma wax eh mam eh eh mam boy eh wax ma lu xew ma rek la problème bi fii ma toog barke yëmal xuloo jël basar man naa kànja man naa maafe faire pele laa woote te ku ma doxat ma day la nga insisté ma ñaf lay kuur maam booy kat moo la tooñ ma rek la problème bi mais jaroo non maam jar na ko yow daa mën dañ laa maam jar na ko wax ma ko rek kan la ki may waxal loolu mooy sonko ci boppam ay waaye ndaw sàmba taalaame bàyyi sonko bàyyi sonko taalaame yow bàyyi sonko da xanaa dangaa bi mu mel ni daf mam ñewata ci lolu jomay warta deglu sonko way waxuma la mam bi way ki dof la ki mom génn béy la murul ta dàqul weñ sama mam je lay wax ah mu melni def daf ñu ignoré sonko def na lu ëpp de man mako ko chantage ndax bu dee dund ba tal li yalla ak sama taxaway ta non li li jomay yeguko mam boy mam boy li jomay yeguko kenn rek mo ma jaaxal oh yaram daw na wuy sàmm sama yaram waa ngi daw yow uyaay jàppandu leen na def ak coono wuu maam booy sama yaram waa ngi daw de billaay mon corps est en train de courir barke jël basar jomaay jomaay ku baax la ah maam booy kon maam xam nga xam nga nag maam booy nag yow jomaay ku baax xam nga ne jomaay ku baax la koy kon sonko ñaari jëmu kenn la sonko jomaay jomaay sonko ñàkk waxtaan am rek ñàkk waxtaan am rek ñàkk waxtaan am maam booy li nga wax nii maam booy bari nañu ci insister Sonko daa dëgër bopp gëw ma ko woon nag mais maa ngi doo xam Sonko taalaame Sonko daa dëgër bopp xanaa dafa waroon dem te demu fa. def ñu ignoré. non da laa ignoré da laa ignorance baaxul nag waaye Sonko bul ignoré ki yow bul ignoré maam booy hmm? naa def ak coono oh Sonko bul ignoré maam booy bul ignoré maam booy bu ko def bul def loolu. yuubi. Sonko demal demal demal gaaw demal gaaw demal demal demal demal seeti ko demal seeti ko de demal seeti ko mer na kay daa mer mhm. mer na yéeg na aal yi aal yi waaye nag maam booy comme comme yow jomaay jomaay la jaaxal ah te jomaay ku baax la te li ci jomaay nekk ci Sonko rek xoolal ay ñoom ma jambal jaa yi yàlla xam ne xoolal jàngale ne may lu ñu wax suñu noon lañ boobu ba léegi ñu ngi jéem a tàqale Sonko ak Jomaay te yow sa bopp xam nga ne Sonko ak Jomaay moom pikk ak peer rek kenn mënu a tàqale te Madiambal Diagne fi mu ne bu déggee li ngay wax mu commencé bind gis nga ko léegi la xëy naan ma Mboro neex na trop waaye amul amul amul amul cancer pour bul dugg bàyyi bàyyi noonu nan ko waxtaane maam booy nan ko waxtaane bàyyi noonu saa wolof saa wolof am nga jàmm saa wolof loo gis ci hmm? saa wolof nga def ak rawatina sëriñ mais man daal bëgg naa gàmm moom yonent bi lañ war a gàmmul. mais ça loolu garaawul Seydina Seydina la rek man da loolu laa jàpp man de foofu laa jàpp ne sëñ bi fa lay waxee xam nga Seydina Seydina la Seydina Mohamed Seydina Ousmane Sonko. waaw donte ko le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla ne anta xut naa laa jëmi ana wax leen wax leen moom moom yàllaa ko wax waaw léegi nag ñun fii ñun fii ñun sénégalais yi ñu ne Ousmane Sonko mii anta xut bu na laa kullu politicien ana ku corriger yaa xam voilà léegi nag Seydina Seydina la foofu la sëñ bi waxee di ngeen ni dégg nag sëñ bi daa dégg de man sama maam ak dégg waaye saytaane fi ne ñu ngi bëgg a occasion wu eh dara laa sëñ bi li ko métti la wax ku ci nekk am nga droit wax la métti voilà bàyyi Sonko demal seeti ko ci fair play ku corriger yaa xam.